ñu wax ci Tapha Tine Tapha ngeen na bëgg moom suñ fa jigéen nag ñu ñëw ci yenn question yu ndaw yi après ñu doo ko tëj naka ngeen na jëflanteeg Tapha Tine ah bon xam naa nag jël nañu décision bu baax nag pour pour euh, préparer combat boobu et puis xam nga c'est par un entraînement intensif que le meilleur gagne te loolu xam nañ ko kon il faut ben ñu sérieux ci il faut hygiène de vie ñu am ko il faut ñu am bu baax yooyu yëpp nag dafa am yu muy laaj parce que combat Boy par échéance lañ koy def engagé wu nañu pour def benn euh, ñaar léegi mu des ñetteel bi ñu ngi xool fan lañ koy defee. mais dama gis boo Niang dafa oyof ci combat bi. te par rapport ak ni mu diisee mais dañuy bu bu bu bu ma mënee bu ma ñemee wax mën naa ne boo Niang léger la ci Tapha Tine la ci est-ce que loolu dina leen arranger. non boo ñaa du léger moom foo maigre la keroog bu muy bëri ji ak euh, saakajoor ñëpp lañu jàpp ni saakajoor ko ëpp doole et pourtant au finish ñëpp xam nañ ëpp ko doole boo ñaa tey jii ku gis am na jamono yoo xam dañ ma doon wax ne na jël ay protéines na jël nangam nangam ay anabolisant lu ne waxuñ may leen ñun daal muscle lañ soxla ci moom waaye tey boo xoolee démb ak tey nga xam ne booy ñaar lan la ko lan lañ ko ëppale. Ah. Hmm? ëppale wuñ ko daal. woon ak Lac de Guiers différence bi du sori su taxawee ak Balla bi du sori bu taxawee ak différence bi sori lan mooy problème bi problème bi mooy defaru ba bés ba bu jotee mu ñëw def prestation bu neex nit ñi. mu ànd résultat positif muy gagné. pare ngeen pour xeex. <laughs> Euh, pare nañ pour xeex waaw. est bi dina la enregistré tafaatin loxo yi jot na. est-ce que tafaatin dina xeex bés boobu. parce que. <laughs> laaj ko ko déedéet tafaatin nag lay seetaan. waaw mais tafaatin mi ngi may seetaan mais man yow laay waxal. dama tafaatin moom. kenn du ñëw ne Tapha Tine ay loxoom xanaa moo Balla Gaye te xaw na sax jog mais. Sa Thiès waxoon loolu est ce que xool ngeen. Sa Thiès xeex na mais du ngeen koo dumul mais Tapha Tine laa la wax est ce que pare ngeen. dem ca combat ba li nit ñi doon wax ak agent de presse gaawaayam force de frappe am ak yu yooyu lañ doon wax mais kan moo gaañu. mais Tapha ak Ba ak Sa Thiès moom père yemuñu. Ah. yemuñu ci laa lañ yemul. Tapha Tine laa est ce que yéen pare ngeen pour xeex ak Tapha ma ne est-ce que Tapha Tine dina xeex laa wax. Tapha dina xeex kay. combat bii. dina xeex bu baax a baax. contre Yékini Junior rek xeexul. contre Ama Balde xeexul. est-ce que loolu la nga yaakaar dina ko am. xeex bi ngeen dox dafa dafa dafa yàgg. Bombardier la woon ak ay Elton. mais boobu ñaataat la ak léegi. xaw na yàgg de. voilà léegi nag bëri na fi ay comba yoo xam ne xeexul. loolu ngeen basé wu. doy ci dara ñun suñu poulain la ñuy defar. yaa ngi dégg. mais yow yaa ma posé question est-ce que di ngeen xeex may la yow est-ce que Tapha Tine dina xeex. loolu moom dina xeex moom yéen kay la laaj est-ce que di ngeen taxaw xeex. mënoo mënoo ma wax dina xeex parce que nee naa la ba xeex bu mu doon xeex contre Bombardier xeex ko contre Elton bëri na fi ay combat yoo xam ne xeexul. Ah, yéen daal ci loolu ngeen base da ngeen yaakaar Tapha Tine dafa sippi. dañu am sunu style am sunu stratégie dañu am sunu style ba pare am sunu stratégie. boo xam ne bu soobee yàlla suñ ci defee li ñuy war a def ba pare jour boobu kenn duñu jëppi loolu mooy wax ji parce que tey xas jëm ca yi xas jóge faa ko gën du dugg ci benn dëkk naan tey ma toj dëkk bi tey ma toj dëkk bi nekk bay waaw bay génn di wax ne toj naa dëkk bi moo gën a wóor kon booy ñaar du wax ne bu ma demee dinaa def lii mais li muy wax mooy dinaa préparer sama bopp defaru defar boo xam ni jour boobu dinaa leen loo xam ne ñëpp dinañ kontaan léegi nag ñuy ñaan nag mu am résultat bu positif mooy gagné combat ba parce que Bruce Lee dafa amoon habitude di wax l'art de vaincre quand on parle de l'art de vaincre c'est gagner à toutes les manières hmm? gagner rek mooy résultat final bi te loolu la ñu bëgg ñëw di toog di tuutil tafaatin munul daraak nangam nangam munul xeex su ma ko jàppee nangam yooyu yëpp ñun duñ ko wax c'est un très grand champion ku fi def ay jaloore la yaa nga dégg ku mën a bëri la comme yëpp parce que bëri na parce que ay combat xam mën nga ci calculer juróom yoo xam ne benn bu ne nuruwul ak sama morom mu daanee adversaire am kon toog di wax ne tey mënul bëre wala xamul dara kooku wax bu yàqu la man duma ko wax Boy Niang du ko wax ñi nekk ci safu Boy Niang ko wax xanaa xëy na peut-être ñoo xam ni dañoo sori ñun li ñu war def mooy xam valeur combat bi ñuy bëre jël l'arsenal qu'il faut pour gagner cette guerre ñun loolu mooy suñu problème. gis ngeen ñoom loolu mooy seen choix su ma jógee ci loolu damay ñëw ci Balla Gaye Balla Gaye